rod yi maa leen di siyaare tele Kër Dof yi moom moom Covid 24 dafa dugg wala Covid 24 man kat dama gis ñi nekk euh, télé Kër Dof yi koo ci dajal masque lay takk daa am Covid 24 bu fa dugg wala ak lu ci mën a xewit da xam naa ne moom prime de risque war ngeen koo laaj ci seenub liggéey seen waa ji kàcc na ba dugal leen ci ay musiba yoo xamante si ni mboolem ñi liggéeyee kër tele Kër Dof yi muy góor muy jigéen ñoom ñëpp ay masque la ñuy takk fi mu ne comme Covid 24 dafa dugg ci biir Kër Dof yi et puis am ngeen patron bu ñàkk fayda Bougane bokk na ci ndekete personalité yi gën a ñàkk fayda ci Sénégal barke alxuraan ndekete personalité gi ñu koy woowee sax doonu ko moo la waa da waxoon ne personnalité ak personne as dañ koy jaawale yàlla xam na ko dafa am benn waay boo xam ne dafa jàngat ci Bougane ne su bu neexoon Sonko Sonko def ko maire bu neexoon Sonko Sonko def ko député bu neexoon Sonko Sonko def ko président ci élection yi jàll waaye moom loolu lépp Sonko mën na koo def waaye moom chef de Sonko mën na koo def waaye moom chef de quartier sax mënu koo def Sonko Bougane ku ñàkk fayda woo waaji naan ko ab cogg nga fi ma waaji di wane waaji Bougane moo ko Bougane ci boppam moo envoyé waaji vidéo bii bii mu monté moo ko envoyé waaji vidéo boo xam ne wax ja def na ñetti at mu dem jël kolelee taf ca lee mais Euh, délinquant fiscal délinquant fiscal sàcc fenkat bu nekkee di manipuler lu nu jaaxal moo tax waa télé kër dof yi jot na ngeen laaj prime de risque prime de risque parce que dafa am loo xam ne sax dafa bon Sénégal gépp a ngi dox normal ku nekk di wane sa kanam waaye yéen fu ngeen di dox di takk ay masque mel ne di du 24 daa dugg ci seen télé bi te yëguñu ko bu dee kuy du 24 da caa dugg te yë yëguñu ko yéen war nañ leen a isolé war nañ leen a